ñëpp ñu demaat suñu occupation quoi waaw di wax 100 Ba moom dañ koy rafetlu ñëpp wax dëgg yàlla Amadou Ba depuis mu ñëw parcelle ba léegi kenn yàlla rek wax dëgg yàlla Amadou Ba jugul si loxoom jugul si yow muy mbëri muy ak sportif yëpp ak lépp loo xamante ne daal koo xamante yaa ngi parcelle rek bi Amadou ñëwee wax dëgg yàlla gis nga sa bopp ci biir si Amadou Ba daal ba tax na 100 pour cent Amadou Ba tamit bu ko taxawalee mu indi lu mel nii xool ma man mi tuuti mi man mi tekkul dara bi mu ne ma kaay def li wax dëgg yàlla cër bi réena trop quoi wax dëgg yàlla dañ wax ni li rafet na Amadou nag lii guleet ci moom wax dëgg yàlla rek mu ñëw ba ba léegi daal wax dëgg yàlla mi ngi social bi ngi ci nibal mi ngi ci lépp quoi ñu koy ñaanal rek moo xam li mu bëgg ci avenir politique yàlla na ko yàlla may lu koy njortam ñu ngi ko topp ci ginnaawam ñëpp aussi tamit yàlla defal ñu jàmm defal ñu salaam ñun ñëpp quoi dox daal 100 pour daal ñun ñu ngi ci ay euh, disposition am saa yu ñu soxlaa muy lii ak leneen ñun pare nañ pour topp ci ginnaaw incha allahu rabbi quoi sa diggante ak waaw waaw ak la champion moom kenn du moom champion moom. dañ koy ñaanal rek kenn du moom <laughs> ah, koy ñaanal rek yàlla yàlla defal ko jàmm. dem góor soog ñëpp ñu ngi nii xam nga yàlla yàlla ñëpp am jàmm rek quoi. Ah, ah. lépp loo xam ne yéen yéen a ngi ci rek 100 pour cent Amadou Ba bi dinañ lay accompagner aussi kon tey bu ñu leen ci boolee ngay àndee kook say frère nga xam ne yéen a fi ay lutteur ñu bëgg daal ngeen jëm ci gën a dugal seen loxo ndax ku ne xam na ne Amadou Ba moom du def dara lu dul président Macky Sall te ci li président tënk rek ci loolu la tënku kon daal ñu ngi leen di tàllalaat suñu loxo pour ñu jàpp ànd liggéey pour le cadre du bien fait yëpp ñoo ko waral moom ci la parce que bu ñu waxee 100 pour cent parcelle surtout ci lutte bi mu moo di dox tey ba mu yegg si fii sam la ñëpp mën a jaxasoo tey ku ci am combat ñëpp taxaw jàppale ko lépp ci moom la jógee yi sam la muy nit ku baax xam ma ku mën a ku mën a defar ay diggante xam nga dañ koy ñaan moom it incha allah yàlla sàmm ko sàmm sàmm njabootam xam nga des ci carrière am yëpp incha allah yàlla mooy ko ci ay ndam jaay Seydina Mohamed vraiment kontaan nañu daana la nuyu waa 100 pour cent Amadou Ba bi di sant Modou Lo ndax deful dara bàyyi ñëpp bàyyi ñu quoi ndax li ñu bokk mi ngi koy wane chaque jour quoi donc nag dañuy sant bu baax a baax ci geste bi rafet na trop euh, te am na solo donc di ñaan yàlla lépp lu yàlla lépp lépp lu feebar bi andi fii gars yi mën koo faj yàlla dimbaluñu si mu musal ñu si feebar bi waaw te gis nañ affaire yi fii nañ ko séddale waa koñ yëpp incha allah. Mhm. ok Yékini Junior ñu ngi ci yow bu baax a baax waaw jërëjëf Yékini lee yàgg na ba tey 100 cent Amadou Ba bi juddu nekk ci derrière président Macky Sall ñu gis si sa taxawaay gis ci taxawaayam ñu bàyyi mu sànni ay seede rek. waaw salaamaaleykum d'abord mooy junior bu baax a baax xam wax comme ni ma waxoon sànq rek ñoom dañ leen di sant bu baax baax xam nga parce que tey lu jiitu muy 100 pour cent parcelle ci mbëri Grand Médine xam ñu jege fii yëpp daal xam nga cent pour cent bi ñoom ñoo ko dox tey ba mu toll fii ba lii lépp mun ci juddu itam la ñu am benn groupe tuddee ko cent pour cent Amadou Ba ku nekk xam na taxawaayu Amadou Ba xam nga ci parcelle ci gox yi yëpp ci Dakar xam tax na ñun dañuy ñëw daal li ñuy def rek dañ ko def ci turam xam nga ñoom daal ñoom ñooy lépp daal parce que li ñuy def symbole rek parce que ñoom ñoom seen loxo ci biir rek lépp lépp xam nga comme affaire yi dafa xaw a takku ñuy dox bare yooyu noonu moo tax ñëwoon def benn geste bi nga xam ni mooy loolu daal parce moom moom bokk kontaan nañ ko ñaanal incha li des ci carrière am yëpp incha allah yàlla def ko ay ndam soobee yàlla kontaan nañ ak suñu mag Modou Lo ñoom Papa di wax ni dañ koy rafetlu quoi jamono bi ku nekk soxla na ndimbal te xam nga jamono neexul moo tax ndimbal bi da ci baax quoi jaamu yàlla la boo xam daal am nañ ci mbégte torop waaw. mais yow a yaakaar naa ne dañ lay jox ci affaire yi pour nga yóbbu jox sa waa koñ yow waaw waaw mais yow da boo demee da nga koy jox ay ñi nga xamante ni soxla nañ ko waa dama xool néew di doole ci koñ ma tànn ay kër jox leen ko mhm. ndax loolu du ñëpp ko soxla mais du ñëpp ko ñàkk bañ soxlaat mhm. te lii dañ koy rafetlu trop ndax àdduna moom ndimbal rek moo fi am quoi mhm. ñu rafet nañ trop affaire bi quoi di sant baaba nag ci 100 pour cent bi moo si dugal di ñu dooleel sunu mag asu jën nga xam ne ba ma nekkee booy ba léegi yàgg na ak man waaw ku yàgg ak man la quoi waaw kon góoroo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaw baaba Baba. waaw Baba. waaw faaw nga wax de. faaw nga wax de. faaw nga wax. taxawal nii taxawal nii. waaw Paco ñu ngi jàkkaarloog ki nga xamante bisimilah. Ah. waaw Paco ñu ngi jàkkaarloog ki xamante ni moom mooy Baba moom moo initié li nga xamante ni moom mooy groupe 100 pour 100 Amadou Ba di ci liggéey liggéey bu mucc ayib te boolewu koog ay wax. kon Baba maa ngi lay nuyu baax a waaw maa ngi lay fay bu baax maa ngi lay fay. waaw Baba yow tey initiative bi nan nga ko xalaatee ak lan nga lan moo tax nga toog inspiré wu xalaat li nga xamante ni moo di 100 pour cent Amadou Ba. waaw parce da ciy jàpp pour cent pourquoi moom tamit moom moom moom mënuñu ko jàppale 100 pour cent yoon la jàppale ko 100 pour cent Amadou Ba lépp lu mu nekk rek ñu ngi si. ñu ngi si ginnaaw Amadou Ba nekk si ginnaaw président de la république waaw da dawuñu si dara day dem ba jeex waaw di boole suñu doole nag di ko boole suñu doole la boole nii di ko joxe ñi xam ne dañoo xaw a néew doole leen ko te yàlla tax lépp si Ba ak Macky rek waaw. kon daal da nga toog nga xalaat ne ni yow war nga mën a jàppale Amadou Ba ngeen jóg ngir yéen da ngeen di boole li nga xamante ni mooy mooy ay doomu Parcelles Assainies ay jeunes est-ce que affaire bi am na ñoo xam dëkkuñu parcelle. waaw affaire bi ñëpp parcelle lañ dëkk boo xoolee ay góor a soog ay Yékini ay Yékini junior ay Papa Sow ñoom ñu parce lañ dëkk mhm. bëri na ñu bëri na bëri na ñoom ñu lañ dëkk yow lan ngay wax ci li nga xamante ni moo di pandémie bi nekk fii ci Sénégal waaw ah, di wax ne jeunes yi daal jeunes yi bu benn jeune génn di taal ay puno di taal ay xoma looy taal jeune daal boo nekkee jeune war nga mën a créer affaire boo xam ne di nga mën a di joxe ay ndimbal moo gën nekk génn si bi di yàq di sonal policiers yi gars yi di di sonn ak yooyu du yoon mhm. policiers yi war ñoom dañoo war sol lu rafet liggéey ba wàcc tey du ñu am boo génn si dëkk bi di taal ay rek pour man baaxul quoi rafetul rafetul. ñun daal boo nekkee jeune daal dëkk ci dëkk bi. yàlla defal ko ci fu mu ci lu mu dugg nag ñu ngi ci ah, fi. mbas mi. nu mu gën a gaawee. ñu mbas ko waaw. waaw asalaamaaleykum waa Parcelles Assainies tey ñu ngi woon nii euh, en direct ak Ibou Laye ci don bi nga xamante ne waa 100 pour 100 Amadou Ba ñoo ko doon amal euh, jëmale ci wàllum social ak feebar bi nga xamante ne moo wutalee réew mi Ibou Laye ñu la doon euh, wax nga dal ak jàmm salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw Ibou nan nga gisee geste bi nga xamante ni Modou def na ko ànd ceeg Baba ak 100 pour 100 Amadou Ba bi yëpp. waaw mais di ko rafetlu rek quoi di ko rafetlu rek. waa di si kontaan trop quoi. di remercier waa 100 pour cent Amadou Ba yëpp vraiment lii moom geste bu rafet la geste bu noble la xam nga surtout maag ak fi mu mi toll nii xam nga ñu jël dooyu toll nii di ko jox ay néegu doole vraiment am nañ ci contentement bu baax a baax macha allah. waaw ak euh, pandémie bi gis nañ aussi ni lëmb na réew mi boo amoon ji conseil boo xamante ne moom ngay jox euh, parent yi ak sénégalais lan lay nekk. waaw mooy gën a fagaru rek quoi ñu xam ne feebar mi ngi si mi ngi si réew mi quoi vraiment ñu ngi gis chaque jour xam nga. nombre de teg nombre de tests yi ñu def ak cas yi di gën a bëri xam nga vraiment ñu gën a jël mesure de distance yi takk masque yi xam nga def quoi li li waa ministère de la santé di wax quoi vraiment jàppale si état bu baax quoi vraiment. jërëjëf Ibou Laye waaw ñu dalaloon tey nuyu. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp waaw di baalu àq ñëpp. Eh, waaw Ahmed Anne ñu gis tey euh, Modou Lo mi nga xamante ni yéen yéen a ko yàpp mu bokk seen staff ñëw ànd ak Baba Xarañ loo amal don bu am solo bi nga xamante ne mi ngi ko jëmale ci population Parcelles Assainies bi ànd ceeg 100 pour cent Amadou Ba bi nan nga nan gisee taxawaayu mbër mi euh, ci 100 pour cent Amadou Ba. ah waaw mais dañ koy rafetlu bu wër ndax lii moom sawaay lu baax la quoi comme ak fu mu toll dëkk bi sawaay liggéey bi ah, liggéey bi demeetul noonu tey jii gars yi jël don bu toy nii di ko def ci population Parcelles ànd ceeg Modou waaw loolu vraiment dañ koy rafetlu di gërëm ñëpp ñoo xam ne tey jii jàpp nañ ci surtout ñu nekk ci 100 pour cent bi am na ñoo xam ne def nañ bëgguñ sax gars yi xam ne ñoom ñoo ko ci def mais dañ koy rafetlu bu baax Modou Lo tamit jàpp na ci bu baax a baax a baax a baax waaw lii moom initiative bu rafet la ko warul tamit di fi gëj waaw waaw dëggantaan nu gis ni ku xam staff Modou Lo moom xam leen ci ci social bu weesoo mbër mi yow aussi ma xam la bu baax ci ci ci social ak feebar bi nga xamante ne moom moo am ci réew mi bu doon conseil boo xamante ne moom ngay jox euh, euh, askanu Sénégal askan. waaw ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu champion bi ñu taxawal di Modou Xarañ Lo Modou Lo ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàcc waaye di la bëggee di am mbégte bànneex jàkkaarloo ak yow di laaj Modou tey nan nga gisee initiative bi nga xamante ni waa 100 pour cent Amadou Ba jël ko tey jëmale ko ci ay doomu Parcelles Assainies waaw maa ngi lay fay di la wax kontante bi fii la ëppee parce que xam nga bulul rek action yi ñuy def xam nga cent pour cent bi jeune yi muy dajale dafa bari ñi nga xam ne sam la amaana daan ñoon sax déggante xam nga ñu boole ñuy déggante itam la ba tey lii xaj ci sant yàlla la di ci am xam nga contentement bu wér a wér a wér a wér di wax yokkute la daal xam nga parce que tey Amadou Ba dañ dañ koy sax dañ koy rek jéem a fay mais mënuñu ko fay lu muy def ci parcelle yëpp di ko jàppale jeunesse su parcelle xam nga ñun lii la ñu mën isam la lu ñu yàlla may lu mu tuut tuut ñu dajale ko isam la jëlee action yoo xam ne def ko ci turam xam la waaw te comme ni ñu wax rek lii tàmbali la gëm nañ ni incha allah xam nga yii ñëw moo ëpp programme yi nga xam ne yii ñëw moom mooy ëpp bu soobee yàlla. léegi 100 pour cent bi yéen lan mooy seen seen objectif yéen lan ngeen lan ngeen bëgg quoi 100 pour cent bi lan moo ko tax a jóg. waaw 100 pour cent bi mooy jàppale Amadou Ba rek. jàppale Amadou Ba xam ma parce que comme li ma lay wax rek tey ñu dañ ko yoreel bor. parce que ku nekk yëg na lu muy def parcelle ku fi dëkkul sax yëg nga taxaw bu muy taxawee bu muy taxawee parcelle. ba tax na ñun tamit tey yoon la ñun ñu rangé wu xam nga mbooloo nekk ci ginnaaw pour jàppale ko dooleel ko. xam loolu mooy initiative bi moo tax ñu tëddee ko 100 pour 100 Amadou Ba. ok Modou ñu ngi lay kontaan bu baax a baax di la jaajëfal. di wax ne ne tey eh, Parcelles Assainies yëpp kontaan nañ si yow ndax yow da ngay dox ci social yu mel nii kon Modou ñu ngi lay gërëm bu baax di am ku teg bànneex si yow jërëjëf. waaw. invité yi xam nga du a fi teew xam nga am nañ ñeneen jógee feneen. si mel ne Big Pato xam nga a jógee ñëw xam nga teewe lii daal vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax. ok Modou jërëjëf.